mbokk internet yi jàllee nag jàmm Wally Ballago Seck nekk nag ki nga xamante ni fan yëpp ñu ko daal ji nag di ko dégg ci réseaux sociaux yi nag muy daal ji nag ŋañ ak nag dem justice ak ñëw ci nag li nga xamante ni moom mooy ay wàllum saaga yoo xamante ni ci réseaux sociaux yi moom Wally nag daal di jàppalu ñaara ci ay doomi aadama nee ñu rappeur bi di Khalifa Ababacar Khoureychi Ba ki nga xam ne mooy Pape Abdou Badji ñu gën koo xam ci six mille problèmes ñoom ñëpp jàpp nañu leen élément yu commandant de brigade de recherche bu fédère bu moo def lu ni mel euh, major Kandji euh, euh, li nga xamante ni moom mooy ca parquet ba la ñu leen daal di nag déféré ñoom ñëpp ñu placé leen sous mandat de dépôt ni ki nag mercredi bi maanaam démb la ñu leen placé sous mandat de dépôt ndax nak la ñu war a xam mooy ne nag du jamono ji réseaux sociaux yi la la neex nga fay daal di nag wax te dara du la ca fekk en tout cas rappeur bi di xalifa Ababacar Khoureyssi Ba ak kii di euh, Pape Abdou euh, Badji ñu gën ko xam ci six mille problème daanaka jàpp nañ leen commandant brigade de recherche bu FEDER bi di major Kandji moo def lu ñu mel euh, déféré leen ndax nag dañ leen war a daal ji nag fixé sur leur sort ñu war a janoog juge boobu ñu sukkandikoo ci ay sources yu IGFM daal di jege loolu enquête bi dañu war a doon posté nag ci réseaux sociaux yi nag ci YouTube ak Facebook ba ca TikTok ay vidéo yoo xam ne dañ doon daal di saaga Wally ak euh, Kétémé euh, parce que nag dafa euh, dañu daal di jàpp ne nag moom Wally Seck daf leen daal di manquer de respect ndax moom mi na muy doxalee moom Wally nag daal di porter plainte Euh, pour que nag justice def liggéeyam gendarmerie daal di nag euh, ubbi benn enquête ci mbir mi daal di itam procédé ci arrestation euh, ñaari mise en cause yooyu leen nag muy six mille problème ak Khalifa rappeur ci nag ba ñuy wër ñoom gendarmerie te la ñu daal di nag gis benn couteau maanaam benn paaka boo xamante ni nag moom Khalifa rappeur daf koy daal di nag nëbb ci suufu pantalon saay su nekk bu koy buy daal di nag génn di demalante ak moom ci nag seen garde bi ba jeexee lañ leen defeere inculpé leen pour injure publique diffamation par voie de diffusion euh, publique menace et détention d'armes blanches sans autorisation euh, ñu daal itam daal leen ay placé euh, sous mandat de dépôt ndax nag loolee nga xam ne moom lañ leen di daal di nag reproché ñu fàttali nag ñoom ñi daanaka nag Wally fa fan yi yëpp ñu koy waxali mbir bañ ko mujjee waxal bokk na ci ne ñu dafa daal di amal li nga xam ne mooy ta takku suuf moom Khalifa rapport sax bokk na nag ñu gën a njëkk jàpp ci loolee eh, takku su ak ki nga xamante ni nag eh, moom mooy eh, nag Adja Astou ak euh, euh, moom mi euh, nga xamante ni nag moom moo nekkoon ex Miss Sénégal ñu ne nag waal daf ko takk takk suuf moom Wally Seck nag diffamation googee la leen di daal di nag toppee moo tax sax mu daal di nag porté ji plainte waaye nag mbir yi dafa nar a gën a doy waar ndax nag ñoom ñi dañ nekk ci TikTok beeg Facebook ak YouTube di ko saaga lu ne ñu daal di ko ko yàq moom Wally ndax dañu wax ne rek moom mi daf leen daal di nekk di leen jaxaseeg